clin d'œil mooy partenaires yi Sénégal jëflante ak yeneen réew yi gis nañ sax Macron bi mu ko defee ñu tontu maa ngi gis également euh, <laughs> américain ba ma gisee tu tweet <laughs> yàqamti na liggéey ak waru ayoba xanaa yeewu nga <laughs> benn euh, benn <laughs> affaire daal dinaa la ko wax. Euh, ndogu dina euh, dina dinaa la wax benn affaire paase daa may laaj ndogu jotagul. Cheikh Oumar maa lay bi. billaay café dose rek. ma ne. <laughs> des na lu bëri des na lu bëri. des na lu bëri moom waaw ñoom ñëpp noonu la ñuy def. Ah, nodd heure boo déggee nodd. Eh, war <laughs> ma ne ma ne gars yi xulil xoolal jàkk jeew fu mu toll. waaw waaw xoolal bu nu toogee di ndogu ndax ñoom ñu ngi ndogu dañuy ndogu ba pare door jóg noonu. même xëdd bi sax sama waa. <laughs> mais noonu lay demee. sama waa koñ da ngay da ngay sax ay. sera mais la eh. jàq bii de. <laughs> wala da ngay gis wala da ngay gis paay paay ñoom bu ñuy xëddee ba pare daal di salaat. waaw loolu itam rafetul. dëgg du yoon sóoral ñi ci mu mu jekk. du dëgg je je par rapport je pense que xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni. Mhm. adduna bi yëpp ko bàyyi xel hier j'ai vu la presse étrangère sous-régionale africaine et autres adduna bi mm. chinois yi quand tu t'amuses avec la toile tu te rends que avec les bouquets là da ngay gis ne adduna bi yëpp a ngi tudd Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. yàlla na ko jikk yàlla na ko jikk yàlla na xam nga je disais que le président Macky Sall moo ëpp chance ci ci adduna je me que Bassirou Diomaye Faye le président de la République du Sénégal moo ëpp chance ci sen ci àdduna bi tax hmm. je reviens pas sur ni mu falo et tout mais biddéew am na tigi bi coow liy bëri nekk yàlla moom la tànn te xamul ci dara dégg na la wax bi te ci dara chance boobu mu am na jàpp naa ni hmm. opportunité la boo xam ne foofu mu utiliser ko sauf que dafa tombé ci benn moment boo xam ni hmm. juum waru ko te dafa am seytaan boo xam ne faw mu moytu ko. oui Macron. Macron. xulil ndànk la ma kaa wax. Ah. dafa am fu ñuy waxee. fan daf la ne Cheikh Oumar daf la ne réew day teg cadre bi conditions yi pour que nit ñi am opportunité. liggéey am richesse et cetera. la souveraineté dont il parle c'est exactement ce qu'il nous faut. Ouais. France duñ ci bàyyi. Hmm. nan la ñuy def. d'où l'importance pour le président de la République Bassirou Diomaye Faye ak ñi nga xam ne ñoo kaa wër jege ko et certainement avec la forte et pertinente influence de Ousmane Sonko. Mm. que mu mën a def face subtilement à seytaan boobu. Mm-hmm. parce que yàqkat la. bu xamee ni wala bu gisee ni que à ah ngee tegu te tegu nga si yoon bi dalay lay créer problème. il a parlé du secteur primaire. Euh, mm. tertiaire plutôt. par rapport à nos notre croissance ak sunu ay ressources et cetera rien que la Sonatel xool leen Sonatel Orange ñoo ko moomoon tey état wu vingt 27 pour cent la si am tubaab bi am quarante deux 42. Mm. 23 pour cent yi actionnaires yee moom actionnaires yi am na ay sénégalais am na ay tubaab am na ñëpp. Mm. mais xam nga lu yéeme si mbir mi loolu nga xam ne Sénégal ko moomoon. Mm. le président la République actuelle monsieur Faye Bassirou Diomaye mm. doit et je pense qu'il y pense certainement parce que bokkoon na ci li ñu doon wax dans l'ensemble souverainiste mm. nu fexe nu nuy nangoo suñu yëf mais pour loolu nangu ko dina jafe te pour pourtant mën na nekk tey jii bu nu nangu woon loolu rek léegi opportunité am rien mm. orange su may xool orange muy jox équipe nationale ay cinq milliards damay ne ñu yab a ngi nii ñu yab Sénégal a ngi nii ñoo xam ni ay milliards la ñuy def par jour par jour bu ñu xëyee rek yónnee ma seen dalal ton bi. naan ma naan ma re naan ma renouveler nga. te laajuma. sàkkuma lijjantiwuma loolu sàcc la. cet argent là bu ngeen ko sàccee jël ko mu toll noonu te sénégalais yi defuñu ko def tubaab yee kaa def mais jël leen benn parti bi delloonu ko duñu ko def donc nguur bi loolu projection la bu intéressante pour moom par rapport à la diplomatie. Mm-hmm. parce que problème orange. ak problème bu banque française yi nekk Sénégal diplomatie moo kaa ci bu boobaa lan ngay def ak tubaab bi xamal ko nekk kat opportunité yi nga am sama dëkk bare na donc now time is win win win daa am ma am mhm. jamono bi mhm. tubaab bi moo gën a am intérêt dox ci loolu sax que ñu parce que tubaab bi ñàkk na fépp ba mu dese ko Sénégal ak Côte d'Ivoire mhm. te buggul ñàkkaat feneen ci bëgg ci bañ ñàkk feneen bi faw nag nga napp ko tuuti faw nga caay-caay tuuti nekkoon ko nag lii mënatul wéy ah, parce que Poutine woo na ma hmm. te li mu wax ak man aussi c'est intéressant donc te man xam naa ni maak yow yàgg nanu nga jaay ko ji koy peegar tuuti ji koy bandi tuuti et et kilifa bi tekkam gi hmm. je pense qu'il se laissera pas faire da nga bu wax ni kon dinañ surveiller sa première visite officielle parce que dund nañ ko fi falu léegi dem France léegi. moom kay loolu sax yow yaa ngi naan falu léegi. dem am am na ay accords yu ñu tudd. falu ndax yooyu am na wala déet parce que. Mhm. parce que li ñu li ñu may sax ñu xippi suñuy bët ba jàpp ni loolu war naa mën a ne. mooy li xew Mali. waaw ak la mu feeñal après. waaw gis nga Niger gii mhm. mujj. Mhm. xool la mu feeñal accords yu bëri yoo. xalaatul woon ni lu mel noonu. mu ngi existe loolu mais mais justement mais mais. parce que on parle d'un projet souverainiste. mais boo xam mënul def mariage ak yi ñuy wax ni. lu lu lenn moo am. fi Cheikh Omar doon waxee ci état bi pré teg condition yi pour nit ñi am liggéey seen dund baax et cetera. Mm. tant que France mi ngi nekk ci tutelam. du nekk loolu du nekk. te France dafa bëgg toujours ñu nekk ci tutelam. France dafa bëgg bu ñu waxee Qatar di jaar ci moom bu ñu waxee Nations Unies bu ñu soxlaa dara mu ñuy defal loolu faw mu dakk loolu mën nañ ko xonq bu baax eh, dama kaa yooxu sa kaw euh, que mais subtilement oui li nga xam ne tubaab yi daka dañ kaa am si ñun tubaab yi France gi tey boo ko woon bon on dégage Auchan tout de suite dina ko jaral daw safaak marwa hmm. boo ko newoon Sonatel dama kaa nangu j'ai toutes les ressources pour fay leen delloo leen seen alal nangam ak nangam ça va me nangam ci sama budget ñu ne ah attention budget bi mënoo kaa laal parce que 7000 milliards la nga fi nguur gi bàyyi. Ah. ci seen i wax mais dans la réalité am na ñeneen ñu wax ne 6500 la. waaw wala 6000. l'un dans l'autre je n'ai pas sincère. ak li laa manqué ci déficit léegi nan ngaa def faw nga naxanteeg tubaab bi. mais pas mais ci biir. déficit boobu ñuy wax sax. gis nga ba ci euh, xam nga ñoom li ñu li ñu li ñu li ñu proposé financement endogène. waaw ne sàcc yi bu ñu seen loxo. waaw yaatal euh, assiette fiscale bi. waaw comme sénégalais fi mu nii nangu nañoo ànd ci changement bi. waaw mooy ni nangu nañu kon di fay li nga xam te mooy lépp su yaatoo li li yi DGID doon sonn ci recouvrement même sax assiette fiscale da ngay dem. jub benn paasan boo xam ne am na wóor na ne am na entreprise muy nëbbatoog wala di lijjanti ci ay kii ba du fay yooyu yëpp bu dee ne dakk na mooy ni kay xanaa taux de recouvrement bi dina am fu mu yegg foo xam ne ba pare ba pare impacté ci budget bi dañuy soxla di daal wala ci impôt domaine la nekkoon fraude fiscale xanaa dana jël ak exonération yi def leen dànk gars yi def leen dànk def leen dànk nous sommes combien d'habitants dix-huit dix-huit dix-huit millions ñiy fay moom laa lay wax ni lu tax lu tax matuñu deux au-delà de de tout du question sénégalais yi nañu fay impôt yaa ngi wax waxi niche quand j'entendais Ousmane en parler Ousmane Sonko en parler à l'Assemblée nationale face à euh, kii di kilifa bi Amadou Ba kilifa bi Ousmane Sonko la mu ko wax niche fiscale yi yi ñuy perdre en parlant de seen cuune nangam nangam mhm. il parlait de quoi de toutes ces multinationales là qu'il paie pas sénégalais bi sénégalais bi yow mi yow saa du entreprise ah, yow Sans Limites tey ba ngeen ubbee ba tey bu leen kilifa bi bëggoon redressé tey fu ngeen jëm dama lay wax rek waaw sénégalais yëpp nag noonu la ñu mel aujourd'hui impôt ñi ko war a lijjanti ñu joxe ñu ko liggéey Guy Marius doon wax la dernière fois entreprise bu war a fay cent cinquante milliards parce que français la mhm. nga fay loo ko quatorze milliards. est-ce que sax loolu nga ko fay. waaw non c'est extrêmement grave corruption bi ne ci état bi dafay changer. Mm. au que ngay wax sénégalais yi. parfois état def ay politique fiscale pour attirer euh, yenn investisseurs oui oui oui ça sa ça c'est connu mais y a une chose y a une chose ce qui s'est passé sur ces douze années là ak possibilité bi ñu permettre tubaab yi en 2007 qu'est-ce que Sarkozy avait dit partez en Afrique en meute comme une meute de chiens maanaam xaalis baa nga fa dem leen jëli ko ñun ñu jàppee ni non tubaab yaa ngi ñëw wéy les investisseurs arrivent oui tubaab yaa ngi ñëw suñu dëkk bi vous avez vu ñu ngi si jàmm te yow ñooñu di arrivé ñëw ñu pour jox la yow dañoo ñëw pour jël donc en termes de paradigme la façon de réfléchir et c'est ça que les Sénégalais ont sanctionné en se disant que comme c'est un projet hmm. projet ba le mu mooy cette rupture la par rapport à cette façon de penser ouais. cette rupture par rapport à ce complexe là les gens les il y a une benn sens de décomplexé bu bien bu am actuellement et il bi dem ci sens boobu sens boobu mooy tax diplomatie am doole et aujourd'hui mm. il faut que Sénégal wane ni moom du du benn France parce que soi-disant amaana mooy sama premier euh, partenaire euh, soi-disant entre moom ak Chine la normalement c'est la Chine après ñu ne ma non c'est la France avec sept cent cinquante multinationales d'après ce qu'on m'a dit au Sénégal c'est trop léegi diplomatie nga taxaw waa ji déjà pour nga taxaw waa ji taxaw ak waa ji les gens de première visite. Hmm. pour man visite bi njëkk bi jaar yoon. Hmm. mooy seeti Adama Barrow bi boo ko waxee nag dafa laaj dégg-dégg. Ah. ñaari dëkk la. mooy suñu premier voisin. xam nga fu kaa teg. Hmm. ci l'authenticité de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. doon africain ak ki dëkkandoo nga seeti ko. waxtaan ak moom ne ko nañ dooleel suñu réew yi. kon da ngay def xam nga lu tax xam nga lu tax. dem Mauritanie xam nga lu tax. dem Mali en 1962. Hmm. wala 1960. il y avait la fédération du Mali. tubaab yàq ka parce que nee bu ñu boolewee dañuy dañuy dañuy dañu may sonal. Hmm. Bassirou hmm. Diomaye Faye le président la République du Sénégal déclic la pour tout la sous-région. foofu la deal bi nekk le Mali se libère le Burkina se libère le Niger se libère. la la sous-région les populations veulent se libérer <coughs> nga dem ci tendance bu mais comme je dis très subtilement xoolal ñoom fa muy safee ci ñoom. nga nga téye fa tuuti ñu nooyal fi ci des nga lijjanti boo paree Gambie nag lijjanti waa sous-région bi après dem seeti ñu ci des sauf que France daf ñu teg bopp ba nga xam ni président bu ñëw toog faw nga seeti leen première visite. soi-disant ñu tegal la cahier de charge bu buñ la tegalee cahier de charge mooy indi nga ñëwaat booy génn da ngay ñàq. boo ñëwaatee Sénégal ñu leen wooy je boobu yàlla bu mu dal kilifa bii di. président seeni base Diomaye coopération sécuritaire seeni il faut tendre à. Ah. saa yi hmm. la France aujourd'hui lan moo tax les banques tubaab françaises commencent di quitter Afrique petit à petit. mais parce qu'ils se rendent compte que les Africains ont compris et que les populations deviennent de plus en plus matures et majeures hmm. pour dire non à toutes ces. corporation de de d'étrangers yi nga xam ne dañu fi nekk di ñu assubi di jël di di def su def naka su dul noonu tendance bi dafaa changer. Mm-hmm. cette jeunesse là cette jeunesse là. bi changer affaire bi faw ñu dimbali ko mu gën a dem vers ça faw ñu jàngal ko mu gën a dem vers su suñu jàng pour mu jaar yoon foog ñu def ci xaalis bu bëri xaalis bu bëri bi faw mu jóge ci sunu ay ressources. Ah. sunu ay ressources faw ñu moom ka donc y a tellement de choses yoo xam ni. kilifa yi xam nañu ko. nañ ci nekk rek ñoom. mais Pa bu la déggee mooy ni kon. Mhm. maanaam toogu jomaay rek di maanaam def nii di ay correction yu muy indi rek mun naa. jubbanti wallaahi azim mën na jubbanti parce que loolu la ñuy wër en fait. dafa mel ni comme dañu bëgg dafa déraillé ñu koy tegaat ci raay. Pape Ousmane oui damaa toog. à combinaison dama toog à maintes reprises. xam nga ñëpp ci Sénégal doon wax dañ doon wax la candidature de Sonko après ñu ne Ousmane on l'a tellement défendu mhm. mais man man la laa doon ñaan. nan nga mënee nan nga mënee comprendre nga nga taxaw raak rey sa bopp avec tout ce qu'il y a lu mu lu nga mën a endurer pour défendre quelqu'un ba pare ñu jub élection ñaanuloo yàlla na kooku gañe nga naan yàlla na yàlla def ki gën ci Sénégal falu jàpp naa ne yàlla fal na ko. d'accord du du l'espoir ki bi nga xam ni. ci la ñuy tegu teguñu ñëpp xool dëkk bi climat bi yow ma heure bi yaa yaa yaa un mois dëkk bi tàngoon na de. Ah. tàng jër climat bi bizarre. tilim salte jaxasoo nit ñi fat nooyeetunu est-ce que du bale jamaa maara day um bale bi la xulil comme qui dirait oui oui ma ba mu balee la bale ba mu set wecc la kii doon wax Maajoor Diouf bale ba mu set wecc 88 élection ba bale ba mu set wecc jamono boobu il avait raison sunu baay bi Maajoor Diouf di way jur ci Ndella Maajoor on salue Ndella ñu ngi kaa ma saw mais ba muy wax loolu effectivement bale ba mu doon wax noonu 88 93 boobu président de la république actuelle Bassirou Diomaye Faye il était jeune mais ba muy wax bale ba jamono boobu population bi comprendre ñu ñu naan waaye yéen pas bien baleem bii bon quand la population ak compris ils ont applaudi le bale mm-hmm. et ça son sens donc aujourd'hui j'ose imaginer te loolu lañ kaa ñaanal que que il va réussir incha allah. il va réussir euh, Cheikh hmm. de yàlla mooy li Pa Paasan wax mooy ñu fexewaat ba defaraat suñuy relation ak les euh, euh, occidentaux mais tey est-ce que état amul beneen réalité.